برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين آله وصحابته وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سيدي شيخ محمد المكي maa ngi وحدي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wa barakaatu eh, tey nag damay xaw du ma yem rek ci ñàkk nuyu xalifa bi mais damay wax ne sax nuyuwuma ko li tax nuyuwuma ko nag lu mel ni la daloon amirul naas yi amirul naas yi yorobaa boobu moom amir waaw amirul naas bi salaat yi dafa ñëw ne sëñ Cheikh dama bëgg nga dimbale ma nga ziyaareel ñu bàyyi ñu ànd jógee ci kër gi dem ba ca xabru ba bi ñu agsee ci buntu xabru bi sëriñ Cheikh summi dàllam yi benn talibé jël ko rek mu door ko bes bes bu metti nit ñep jaxlé xol ko mu né talibé bi da nga sob yow ci sama dal yi nga tollu teyel sama dal yi dal yi señ cheikh yi man mako wara war lolu moy ñun àgguñ ci nuyu khalifa bi dañuy nuyu señ makki mom mi ko fi téwal mu nuyul ñu nawle nekk ak say mag ñoo xam ne fekkee nañ bàyyi bàyyi gërëm leen jàngal leen ngay lu ndaw fekkee woo bàyyi <clears throat> ñu bugg nga baax bugg nga am itte tax ñu jël la teg la ci kanam loo xam ne euh, responsabilité bu rëy yi Cheikh Abdul Malik marhaban <clears throat> comme ni ko waxee borom jataay bi ñëw na tax na ba am na loo xam ne benn tàllal boo xam ne duma ko mën waye sama rak sama xarit wala sax buma nexe mané sama mag buy bay euh dafa am lu mu wax sank wax juñ wax ca ngon mu ne ma wax joju du waxi ngon gi fii heure bi lañ ko wona wax ma bëgg répété at rek bu ko défé ñu dal di ko yemalé fofa ñu jox yëf yi ci ko mom lolu moy lan moy bala may dugg ci lolu sax ma ngi gëreum cheikh babakar Ñang ci taxawaay bu rafet bi nga xam ne moom lay taxaw ci pays bi di gëstu heure bu nekk def itte yu mag ku dégg li mu wax léegi ak analyse yi mu ci def ak yooyu nee naa ko sa lettre yi ngay jàng baax na waaye analyse yi ngi ciy def day ko bindaale loolu yi tamit am na njëriñ boo xam ne ni nit ñi war nañ koo jëriñu dama dégg ci waxam léegi mu wax bi muy wax ba wax bi bàyyi di taxsiin sàmm garanti taalibe mi ci jamono guerre mondiale mu am lu ma ci jàngee léegi parce que man gis naa benn leetar boo xam ne bàyyi bind na ko benn taalibe jox ko benn mbóot ne ko mbóot bii def ko ndax mbóot bii man ci jamono guerre mondiale bi fii ci Medina laa toog mais ci laa doon sàmmee sama taalibe yi ba dara jotu leen ci jamono guerre bi Biafra bi ci laa leen sàmmee ba dara jotu leen kon maa ngi leen ci maa la ci jox ndigal yow itamit pour nga def waaye jàngat bi bay def ci loolu nag mooy dama yaakaar ne il faut jot na nag pour ñu bennoo pour ñu ànd lu tax ma wax ko gis nga policiers yi laaj leen léegi maa ngi leen di delloo njukkal bu baax di leen gërëm seen taxawaay bu rafet mais laaj leen léegi su fekkoon ne problème dafa am ci benn barab ay citoyen sénégalais nekk fa ñu yebal leen pour ñu dem récupérer leen xam nga lu ñu njëkk a def bu ñu demee fexe ba dajale leen ci benn place ba ñoom ñëpp ñu nekk benn dànk ñu sécuriser leen soog leen faa mën a jëlee indi leen li ma bugg a wax ci loolu mooy garanti bàyyi boobu noonu suñ ci buggee dugg dugg bu wér dañuy nekk benn dànk ku lay sécuriser nga nangoo nekk benn dànk nangu ñu jël fii yóbbu dajale leen fi ñu leen war a dajale bu boobaa ci la ci la la ki lay sécuriser di mën a sécuriser mais bu ñu yebalee ay policiers ñu def benn périmètre de sécurité ne def leen fii ku mu neex nga génn dem fu la neex ba pare lu la dal nga ne policiers yi la loolu du mën a nekk li ma bëgg wax mooy yaakaar naa loolu leer na. wax naa fi sànq ci bëccëg ne sëriñ bi sëriñ Macky ñun dem nañ Cameroun alhamdulilah def fa tukki moo xam ne yàlla def na ci ndam lu rëy rëy parce que ndam li mooy ñun laata ñu dem Cameroun taalibe bàyyi gouvernement ba daf leen ak classé woon ci bëkku xaram comme bëkku xaram la leen jàppee niñ bañee gis lu bokk ci bëkku xaram noonu lañ leen bañee woon dañ leen di aaye wasifa dañu leen di aaye sikkari ajjuma dañ leen di aaye recevoir gan dañ leen di aaye yónnee xaalis wala recevoir xaalis bu jógee bitim réew di leen surveiller comme ni ñuy surveiller euh, meew muñ teg ci kaw taal mais ci voyage bii la ñu ministre de l'intérieur bi wax Baba Lamine ne ko bés li ki tey ñun taalibe bàyyi xàmmee nañ leen te dugal nañ leen ci ñi nga xam ne ñoo war a indi jàmm ci réew mi ci seen jàngale ak seen ñaan lépp lu ñu suma carte ngi nii lépp lu ñu def

ay muctamaraat ci àddina bi waaye man li tax ma nettali loolu pour sant yàlla mooy ne dama cee gisee ne la tax ñu am loola mooy ne dañoo dajaloo ci ansaaru ci turu ansaaru diin am benn kilifa boo xam ne bu état bi di wax moom lay waxat dankaloo boobu ñu dankaloo moo leen may bu fa bu fa xalifa bu yónnee baabale mel mu dem ñu am fa ndam boobu gouvernement bi rek ko mais buñ tasaaroo woon duñ ko mën a am leçon boobu laa bëgg waa senegal yi ñu jàng ko parce que mënuñ fee nekk nag ñu ne ansaaru diin te fii la ansaaru diin déparé ñun sàggan ba àddina bi yëpp bennoo àddina bi yëpp ànd ñu gis gàmmu Nigéria yi gis feneen feneen feneen ñépp mën a dajaloo def benn dank ba mu des Sénégal loolu nag fi mu ne nii xewi na te lu xew yi lu ne dañ ko war a bàyyi dem ci li xew fi ne li xew mooy bennoo dégg nga ma wax ne ci gàttal bi xam nga gàmm moom mooy juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye jàng nañ ne benn bés laaj na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow bésu altine lan mooy solo si mu ne zaalika yow mun wulittu fii bés la boo xam ne man ci laa judd mu mel ni dafay corriger waa ji sax wan ko ne ko bés bi ma juddu daanaka jarutoon ñuy laajte ndax ban solo la parce que doy na rek ci laa judd kon juddu yonent bi li ñu war a màggal la waaye dafa am ñu ne ñoom dañ koy ma dañuy màggal bésu juddu bi am ñu ne dañuy màggal bésu ngénte li bàyyi mu ne man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amul lu may jël ci moom di ko bàyyi ci moom man yëpp laay boolante damay màggal bésu juddu bi waaye damay màggal bésu ngénte li waaye yemuma ca sax waaye bés bi mu juddu ak weer wi mu juddu ci ci ci ci ci ci avril bi boobu yi tamit dama koy màggal waaye bii nag ci weeru tubaab bi jagleel naa ko capital jagleel naa ko Dakar Cheikh Diagne Wulu mu ngi may fàttali dama waxal taalibe yi ne leen gannaaw gàmmu Medina gi gàmmu euh, Dakar bii di koy wax gàmmu ñu ñu ko daan wax gàmmu jëppal mooy événement bi gën a rëy moom bi gën a rëy ci Medina wala moo ci war a gën a rëy lu tax gàmmu tey ba gannaaw bàyyi lañ ko lañ ko sos ak li muy baax baax ak yeneen yépp mais gàmmu gi bàyyi moo ko ci joxe ndigal bind ko ci xalimbaam joxe ndigal pour ñu def ko kon gàmmu goo xam ne bàyyee ci joxe ndigal bi yaakaar naa ne gannaaw gàmmu gu mag gi moo ci des kon tamit baaxoon na pour ñu fàttali ko beneen bi ci topp rek beneen point bu mujj bi mooy maa ngi waxtaan ak taalibe yi di waxtaan ak autorité Sénégal yi di waxtaan ak sëriñ si ci Sénégal ne Sénégal réewu jàmm la parce que Cameroun dañ jógee bërki démb avant loolu ak euh, état policier nit ñi ñuy surveiller nit ñeeg ni ñu leen di dóoreeg pour dem ci yeneen réew yi am fitna la danga xam ne jàmm baax na jàmm nag police baax na ci gendarmerie baax na ci service secret baax ci nangam ak nangam mais respecter ante yi tamit Bagna a Bagna euh, bañ a dugg ci ci ci domaine nit ñi ak seen muqaddasaat yi loolu moo ci ëpp solo loolu nag maa ngi wax autorités yi yépp ci kaw tribune bi ci turu Ansaarud-Din ci turu xalifa bi ci turu Cheikh Macky mii ne état bi loolu war na cee bàyyi xel parce que léegi gis na lu xew loo xam ne vraiment du jur jam. mooy kum neex rek nga jël sa audio xas sëriñ bu la neex saboté ko rek daal di ko dugal ci affaire yi mu tasaaroo bërki démb maa ngi gis benn waaye bu ñàkk fayda euh, dama yaakaar ne sax Tiwaawan a wax ne fa la bokk la bokk wala bu fa bokkee it bokkee wu fa nañ na na nga xam ne noonu la noonu la fa noobali bokkee parce que mi ngi saboté maam Alaaji Abdoulaye naan ba mu demee Faas cadeau bi mu indiloon Alaaji Abdoulaye bi mu ñëwee daf koo mu laaj ko Alaaji Malick Alaaji ba mu mu ñëw ba agsi ci Alaaji Malick ne ko cadeau bi réer dama mu ne Alaaji Malick dugal loxoom ci ron euh,

ak bu mu ci mën ci doon kan moo ko mag ci diine waxuma ko pour kii mais dama bëgg vraiment loolu état moo ci war a jël ay mesures génnee ci ay ay ay loi wane ne désormais pour ja conserver euh, préserver jàmmi réew mi kenn ku nekk na wax ci boppam te bàyyi tooñ yi ak bàyyi euh, euh, saboté ak ak yabaate gi nga xam ne vraiment li muy jur ëllëg mooy lan suñ taalibe jug moom i tamit wala taalib ku jabooti Maam Alaaji jug ne dafay tontu wax lu bon ca lële kooku nga tontu ko loolu dëgg dëgg état bi war na cee jël mesure parce que jëmu kër te baaxul wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu barhamu baun waraun alifun thumma ha mimun mujël faydu tiijaan jox ñu ñuy naan